jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak euh, topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci set internet bi di Net Bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu wutale diwaan bu nord si Ndian lu toll ci juróom fukki hectare tool nag la ñu daal di yàqate mu nekk ay tool yoo xamante ne rek doon nañ ci bay nag lii di Sénégal ñu gën koo xam nag ci yamba lu toll ci 2 milliards de francs CFA nag la ñu daal di yàqate ba ñu ko defee rek ci xayma mu nekk nag yàqu yàq yoo xamante ne rek suñu armée bi nag dinañu koy amal foofu ca diwaan bu Casamance fi nga xamante ne rek moom mooy ca nord Sindian armée sénégalais nag daat nay amal nag ab opération ngir yàqate rek tool yooyu nga xamante ne rek dañ doon ci bay nag lii di Sénébar ñu gën koo xam ci turu Yamba mu nekk nag juróom fukki yoo xamante ne rek bañ ko xoolee nag ci koppar daal dinay dépassé lu toll ci deux milliards de francs CFA yoo xamante ne rek suñu soldats si daal dinañu koy yàq mu nekk opération bi nga xamante ne rek daal di woon nañu ko lancé niki juróom-ñaari fan ci weeru octobre foofa ca nord Sindian nga xamante ne rek bataillon bu commando ñoom ñoo ko ci boobule secteur ci ndimbalu ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk nag eh, ca bataillon de reconnaissance maanaam ay éléments yu faree ci bataillon de reconnaissance ak ci ndimbalu vingt cinquième compagnie eh, bu combat mu nekk opération boo xamante ne rek lañ ca namu moo di ne nag eh, ñu daal di amal ay condition yoo xamante ne rek yu mucc ayib la bu ko defee ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo jugee ko woon ñoom ñoo dëkkoon ca boobulee bërëb nag ñu daal di leen fay dellowaat maanaam daal population bi nga xamante ne rek ñoom ñoo doon dund foofu nag te ñu daal di leen fay jëlee woon ci temps guerre bi mën a retrouver waat nag ak seeni suuf foofa ca diwaan bu Casamance ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci Gris Bordeaux mi nga xamante ne rek daal dinay yëkkati kàddoom nag daal di waxtaanee fam daal dinay wax ci turu mbër ñoom ñoo nekk ci làmm ji na nag kii di Malick Ngom la ñu daal di tànn ba jëwrin bu ñu dénk wàllum sport ak culture moom ci jëmmi boppam rek waxtaanee ak ñoom moom sax war na amal nag ab annonce ni ki eh, talaata nag ngir ñu xool rek moo nar a wuutu rek kii di Bira Sène mi nga xamante ne moom moo nekkoon de lutte ñu dippee ko CNG mu nekk ab dogal boo xamante ne rek daal dinay am nag ginnaaw bu ñu defee waxtaan ba noppi daal di consulter ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo ŋànk nag wàllum lamb ji ci mbir mu nu mel nag ministre bi ci jëmmi boppam dafa sàkk woon rek daal di amal ñett nomination boo xamante ne rek moom moo koy tànnal boppam ci boobu les rencontre nag ginnaaw soutien yi nga xamante ne rek jot nañ ko fa indi comme leeral ñii di promoteurs yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo bootu ci lamb ji nag daal di woon nañuy am mbëbët nag daal di reconduiraat kii di Bira seen maanaam daal Bira Sène toogaat ca boobule bopp comité waaye nag association yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk nag ci li nga xamante ne moom mooy boobule CNG bootu nag ci mbër yi ki nga xamante ne rek moom mooy Ibrahima John ñu gën koo xam ci turu Gris Bordeaux daal di koy diriger moom nag la mu daal di gis rek moo di eh, kii di Malick Ngom nag la ñu àndal te moom lañ bëgg rek mu jiite eh, boobulee CNG moom Gris Bordeaux nag daal dinay def boobulee annonce ginnaaw ñu ko dalalee ci ab émission foofa ca Bantamba TV daal dinay dëggal que ne nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo bootu rek ci làmb ji daal tànn seen candidat te ñu kenn rek eh, ku dul ki nga xamante ne rek moom mooy Malick Ngom di kaddu kii di Gris Bordeaux ne nañ nag critique yi nga xamante ne rek def nañ ko ci yenn promoteurs yi moom ci jëmi boppam rek daal dinay dëgg que ne nag ñoom ñooñu am nañ ay yàqu yoo xamante ne rek dinañu koy am te jógewul fenn fudul ci CNG bi ndax ñoom jëluñu seen responsabilité ci réunion yi nga xamante ne rek doon nañ ko amal ba tey bu ñu sukkandikoo ci moom ne na nag ñenn ci promoteurs yi dañoo am jafe-jafe ngir nag ay gala ndax ñoom seen jëmmi bopp rek dañ leen di faral di leen imposer lu toll ci 3 millions de francs fa te lii di CNG nag moom mu war a organiser nag mbir mu nu mel ndaxte nag dafa bokk rek ci yooyu les cahiers de charge ba tey rek Gris Bordeaux daal dinay dëggal que ne mbër yëpp nag mbëru Sénégal yëpp ñu ngi daal di soutenir candidature kii di Malick Ngom jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen xibaar